ci rap li rap rek la mëna doon est ce que sax ñi kay def duñu ay rap tay da ngeen nekk ay xarit di and suba ngeen da daagasante ba sagande nga ko belende won lay rekkal and nañ fa ak Sidi job way jigen way bu jéggi dayo tay ñom ñaar ñoo ñi ngi kalaasante est ce que sax duñu wo Sidi job mu até kaa ma xamal la dara si won lay rekkal mo mëna and ak yow si façon clip bu nekk mais bis bu la jéko dina la kalaas bis bu la jéko dina la ko def mais nak na la xamal dara ci nga ko belende foko wo mu wuyse la bo wote xarit mu ànd ak yow doon xarit mais bis boko ko di nga xamni tontu rek lay def te du ci sét dara mais sama gaay Yen ñaar classanté bi baxna na si parce que demone ngeen bay ba réer ci rap ku nekk tak jabar seen rap yop nekk affaireu sentiment mbëggeel mbëggeel instant bi nag jot na ngeen de ngeen delloo buum sa mboy mboy ga mais nag génne leen si Dip Doundou Guiss parce que mom nee won Balla gay kenn du ko fekk muy mbapat am nak ñu ni ko ñii mbapat ñoo dàq bëre mais nag boo mbapatee ba daan ñëpp isa jarate na ngay mbapat ngaa ka bele de wallay rëgal na saf <laughs> na safa saf naa